mbir mi danaka ñett mbir ba ñent moko indi bi ci jitu muy fan yi ñu nek am ku ñew ci dekk bi di am ay yëngatu yum fi def ma bëgg ko présenter wat encore sénégalais yi ndax dafa melni dañ ko faté gun kan moy Idrissa sek, Idrissa sek, nit la ko xamni ni dana ci teunk ñent rek fii ci dëkk bi di Touba deret gi fi njëkk tuuru muy sëtu Serigne Touba Idriss Seck moo ko indi ndax amoon na ministre de l'intérieur amoon na ministre de justice procureur mi ngi fi woon mais kenn prononcé wutoon ci dossier boobu menn moom rek moo ne woon nañ ko jëli ak nun ko mën a jëlee après après bi li yàlla dogal mu am moo wax ne dun bàyyi n'importe qui muy def ci dëkk bi lu ko neex ci réew mi ak ak famille boo mën a bokk benn poste vice président assemblée nationale bi PDS amoon ci biir euh, bi mu nekk opposant sañ Bara Dolly la ko Ablaye Wade joxoon jox ko numéro 4 loolee ba mu amee bis ba nga xamee ne ñëw na assemblée di CC ba mu wooyee sëñ Bara sëñ Bara na ko Mbàkke lam ko wax publiquement mooy sëñ Bara xanaa xamoo fii kenn du fi wax Mbàkke président lañ fi wax loolu ba mu amee ba mu koy rappelé at sëñ na ko ba yomal xiyam Mbàkke laay wuyoo ba muy rappelé loolu ba muy rappelé waat di defaat vice président yi bi mu egsee ci turu sëñ Baara Doli ci turu sëñ Baara Doli da ko effacé def ko député simple kon jàpp naa ne ki nga xam ne mooy xeex ku wuyoo Mbàkke ci biir assemblée nationale tey bu dellusiwaatee taxaw biir Touba gii dama jàpp ne. murid yi mom fatuñu ca murid yi amuñu kuddu serigne bamba yaakaar ñu kudu sëriñ bamba ca ku japp ne man nga leena nax da ngay nax sa bop ku japp ne man nga leena nax da ngay nax sa bop parce que damay wax ne sax buma déggé leader wala dara ñun ñi def politique xam lan moy politique di wax naan man murid la di ko wuyoo man ay da bay japp nit bu nekk murid koko nekkal sa bop koko nekkal sëriñ Touba am na ku ne ku ne rek Serigne Touba am na ko bu loolu jàllee nag maa ngi woote unité pour ñun responsable politique yépp ñu ànd nekk benn bàyyi xuloo bi bàyyi xeex bi xam ne fii ñu jëm am na luñ bëgg ca lan bëgg bëggal ko président Macky Sall loolu mooy suñ ndam waaye nag du tee kenn ku ne dafa war a yem fa war a yem ndax loo bëgg-bëgg jàmmit lii dëgg moom wax ko kon liñ bëgg mooy unité nekk benn ànd liggéey pour fas yéene élection yii ñu jëm président am deuxième mandat premier tour. beneen bi ci tege nag dama koy adressé suñ xarit président de la république danoo nekk ci dëkk bi di ko liggéeyal ñu xam ne Touba na bàyyi côté politique bi xel ndax. mooy deuxième ville ci population ci Sénégal bàyyi xel politiciens yi ndax ñooy wàcc ci waar wi ñooy dem ci nit ñi ñooy dajale nit ñi ñooy mobiliser nit ñi mu jox leen ay doole ndax dëkk bi ay cadre gi fi lu nekk fi ñu mën a yor réew mi sax ñu ngi fi mais mu doole leen ngir lii ñu jëm ñu mën cee am ndàmm ndax saako bu ci dara nekkut du mën a taxaw waaye président dama koy wax ne ko ci wàllu politique ah bu mu dépendre ci sama côté sëriñ bi parce que sëriñ si duñ wàcc ci ci terrain bi de politiciens yi ñooy wàcc ci terrain bi ca it maa ngi koy alert di ko wax na ne am lu mu bàyyi xel 2000 fii la ma fekk jamono socialiste yi ñooy xeex de 89 88 laa dugg ci politique di jàppale Ablaye Wade mu def mitin Mbàkke foofe la doon waxee ne sëñ Abdou Khadim mooy sama sëriñ ca Cheikh Abdoulaye Lahat joxoon ndigal kon léegi ma xaw a fenn ah, lu bari fekk na ma fi ma koy alerte di ko wax ne ko am na ñoo xam ne ki sëriñ si képp kon ma sa àndal dafa daanu na leen bàyyi xelaa ah. leer képp ku ma àndal daanu na depuis socialiste ak léegi di man du ma mari marioñette lañ koy waxee du ma marioñette personne man dama am gem gem ak wëlor kuma andal and ma ak yow kuma bayyi bayyi na ak yow president Macky Sall la andal ci goudi yi ñu toll waye nak damay wax ni ceci paré pour être mille tracement parce que parti bu man di doon buma ci gisu sama bop luma fay defati suma démé ba sama deug mënuma ko wax luma fay defati gem mom la ko def muy serigne touba kon li la ne won na ko leral pour ñun sénégalais yépp ñu xamné fi la nek lii mooy li ñuy jariñ ci relation diplomate entre Gambie ak Sénégal ni mu rafetee gëj na ko rafete kon loolu lépp ñu koy ndokkeel président Macky Sall di ko wax ne ko lii ñu jëm lii ñu jëm laa la wax avec unité ànd nekk benn ca bàyyi pitaale yi parce que am na ñoo xam ne ci biir parti ñu ngi fi nekk di pitaale guddi ak bëccëg ma ne pitaale du dem jëmul kër nit buy dox day doxe benn tànk jëm fi mu jëm bañ ba am nam waye yaangi xalat suba lu ñew ngay tek fi tank di tek fank tank nañ ko arrêté ñi and ak Macky Sall nañ arrêté lolu ci xam ñom ci seen jëm bopam seen gëm-gëm moy lan am nam kun andal mu ne 1900 euh, après 1960 waay waay wara a continuer di yor rew mi ci kaw ñu jappalé ko waaye ci deug nan bàyyi pitali yi les responsables yi nga xamni ñi ngi pitalé euh ben bi moy ragal gi nga wax ragal mom. man ci sama bopp laa koy tàmbalee dama xamul fu mu nekk ci doomi aadama ba bis ba ma demee ba xamuma fu mu nekk ci doomi aadama boobu laa ko noppee def ci àdduna kon foofu moom man ci sama bopp gisuma kuy taxaw ci sama kanam ku may ragal kon kenn laa ko def yàlla ca yàlla xëy na dama koo gisagul tout court kon jàpp naa ne jàpp naa ne jàkkaarloo googu avec euh, ak ci jàppale président de la république mi nga xam ne moo nekk jiiti coalition benn bokk yaakaar fii ci Touba sunu liggéey ak responsable yi fi nekk bu nu jàkkaarloo ak moom yaakaar naa dana am ndam waaye nag du Idriss tax ñuy wax ndax dañ fee nekk ak yeneen i parti ci dëkk bi moom dafa dugg ci dëkk bi am lu muy gëmloo nit ñi di ko wane nit ñi ca fekk na bokkut ak la nekk ci moom loolu tax ñuy wax ci moom waaye du ragal du tamati nit la koo xam ne déranger nañu quelque part déedéet dafa am fu mu ay jaar-jaar ci dëkk bi góom yooyee wéragut mu ñew ci dëkk bi japp ne nit ñi dañuy naaw ñukoy fàttali Sénégal yi di leen ko présenter encore euh, Moustapha Cissé mais ba léegi si nit ñi dañoo bàyyiwul xel ne Moustapha Cissé nee na wax na fépp partout ne minute wut Touba man kon pourquoi par mu des fi rek naan Moustapha Moustapha Moustapha ah am ay responsable yoo xam ne ñu ngi fi di ko ja di ko jàppale àndoon na moom ñoo ñëpp nag ñun tàllal nañ leen loxo pour ñu ànd ànd liggéey ay politique moo boole woon pour man li fi des Sénégal euh, day continuer politique gis nga politique na ngeen def nang politique dafa am lu melalu mana ci ay intérêt nit ki nga xam man na nek sa noonu tay suba man na nek sa soppé ki nga baña andal tay suba man nga and ak mom non dama ne la man damay défendre samay intérêt politique défendre intérêt politique moy suma gisé nangam nangam jojo jaarut amna droit donti sama parti nek man li ne d'accord ma ci waaye nak lolu teewut suba wala lenen ak lenen sëñ bi ah fii la kii am na yeneen yu des yu wala yu ëpp doole politique.